mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen site bi di jant bi TV di site buy woote jàmm liggéey jub juboo jubale ak jaamu yàlla ngir njariñul Sénégal gi ñu bokk ak jant bi TV aboneel bés kolos bi man di topp mboolem suñuy programme te lépp lalu ci jàmm. commencé gën a xerawlu te déglu Serigne Cheikh Aliou Mbacké moom Serigne Aliou moom Cheikh Mouhamadul Moustapha. yonent bi salawaatu rabbi alayhi sant suñu yaakaar tey ak ëllëg muy xadimu rasul di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naalal sëriñ Tuubaa mu dolli ko ca ña yoroon naal ya ba mu egsi ci moom mu dolli ca loola ba boole ci naali boppam te mu ànd ak ngërëmal sëriñ Tuubaa di sant bu baax nag ci jataay bi euh, di jéggulu ndax maa fi waroon a jëkk waaye démb danoo amoon bisum ndaje moo xam ne waa Ndakaaru ak waa Tuuba ak waa Luga ñoo waroon a daje ca Luga moo tax ma ñëw ci guddi bi ma ko sëñ Moustapha yégalee ma ne ko bu soobee yàlla dimanche dana ñëw waaye maa fi waroon a teew ndax lu jëm ci Cheikh sëñ Cheikh Gaynde Fatma kenn waru ma ca jiitu ndax bu dee ci yaakaar naa ne ku ma ko gën a xam nanguwuma ko waaw ndax ma ak sëñ Moustapha mii ak sëñ Abdourahman la boole woon nuy jàng musuñoo tàggoo benn yoon ñu ñoo xam ne musuñoo jaar ci ngone benn yoon la ne woon ci si Cheikh Gaynde Fatma mu jëlee ko ci Cheikh Mamadou Moustapha mu donne ko ci sëriñ Touba moo na ci seen jëmm yi te lu ma la te buñ nee ndax nit li ñuy wax dëgg la dañ naan ndax mbokk yaa ko wax te loolu mbokk gi ñépp xam nañ ko man ak sëriñ Mbàkke soxna loo suñu ñaari maam yu jigéen ñu jur suñu waajur wu jigéen ñoo bokk ndey ak baay ñu bokk nag Cheikh Mahamadou Moustapha kon mbokk wax euh, sëriñ Cheikh nag da doon kiimaan goo xam ne bu amul woon day jar ñu inventé ko far yalla amalal nu mu une étape nek une référence ci yoonu mouride wo xam ne wax dëgg yàlla euh, joué na un rôle prépondérant ci doxenu yoonu mouride maa ngi sur le plan mégalopolis natam bi mu nat Touba 4 quatrième rang mondial te natt la boo xam ne caxat caxatee nañ ko nga xam ne bu ko defoon moom dong rek damay xam ne kon premier rang mondial lay doon te loolu Serigne Touba tax mu def ko ak i kilifaam yi fi nekkoon sant ko ko mu def ko ngir jëmmi Serigne Touba xam ne kon Serigne Touba amul ndend alhamdulillahi rabbil alamin euh, ñu waajaloon ko nag bu baax a baax ndax àddina euh, من تفكر أبصر من تفكر سيدنا علي كرم الله وجهه مكوخ من تفكر أبصر قل الحمد لله رب العالمين بسرين بدنيا يعني وجعله دهب مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفاهم سايما ديجي ويورك تي سنو تورندو سنشيخ غايني فاطمة سنو خل te du ci jóg mosu ci jóg itam benn yoon dëkk boo xam ne xam-xam lu ñu fay def xam-xam a koy lal ay xalaat a fay balle yoo xam ne day ànd ak dégg bu wér a wér euh, ay xalaatam lenn loo ci jël rek mat na téere léegi naa ko fi doon wax téere léegi wax dëgg yàlla bi mu koy wax fekk na ma di ko xalaat ne ah bu fekkente ne maa ngi ciy wax de danaa proposé loolu waaye dama yaakaar ne ay volume yu bari lay doon lool lool lool ndax lan ci xalaatam lu ci mën a doon boo ca jàppee rek mën naa yor àddina ci wàllu boobu mën naa yor àddina euh, sañ naa ko wax noo toog ci kolobaan benn bi sëñ Moussa Fall ñu raxas oto bi ba mu set mu solu ba jekk dugg ci oto bi fotosu am ku mu woote ah ñu defe ne kune la ñu wax wax wax nekkete man la doon woo bi ma ñëwee mu ne ma wëril ne sama wet ma dugg ci oto bi ñu ñëw ba keroog ñu ngi jullee timis kër bay Diagne ci Mbàkke mu dugg ci naar bu ñuy wax bitigu naar bu ñuy wax tufi fara ñu ànd Tuuba mu am lu mu wax ma dellu ñaareelu yoon ba dafa ñëw ne ma nga dem def dossier boole naa la ak sëñ Abdou Lahad ki nga xam ne nag moo la taxawoon noonu jàngal la ba nga am sa cursus mu dugal la ci formation ci sa vie publique mu xóot ca lool alhamdulilahi rabbil alamin te xam doxalin ba nga xam ne léppam ci Serigne Touba la ko daan roy léppam Serigne Touba dafay bàyyi ay xalaat waaye moo ko mettre en application pratique waaw ndax xam-xam dafa war a jiitu lépp al ilmu wal amalu jawharaani li xayra yi daarayni yajlubaani kon alhamdulilah bi mu xamee loolu def fi xam-xam boo xam ne ba mu fi jógee ba léegi muy màgg ñi fi nekk ñi ko fi nekkaloon di ko jëmee kawoon kanam tàmbalee ci suñ mag ju baax ji sëñ Mbàkke Soxna Lo jaar ci sëñ Abdou Fattah ba ci tey sëñ Abdou Rahman mi wax dëgg yàlla euh, def nañ fi loo xam ne dëkk bi nga xam ne sa maam moo ko sos mu dem ba nekk deuxième capitale réew ma ci démographie ak ci économie wax dëgg yàlla nga mën a teg ci seen loxo loo xam ne deux mille vingt trois deux mille vingt quatre formé nga ñu jàng ñoo xam ne compétence mën nañoo yor dëkk booba wax dëgg yàlla sa wàcc na bu baax a baax te yombul woon mu sa def lenn ci yomb ndax ay gàllankoor rek moo ko toppoon loolu lu mat a xalaat la lu mat xel la bu doon koo xam ne sax dañ la bàyyi nga lii bu ngay def li mu def sax day loo xam ne des dafa mat a yéeme waxuma laag ba mu koy def ay gàllankoor la àndaloon bu baax a baax loolu it lu mat a xam la waaw waye lolou day gëna joxe jom gëna joxe détermination te xamna Serigne Touba ba jàng ko xam fam ko tolloon ak lam ko euh mu nekkon ci dëkk bi rek nekk fi rek aku melom yaron nañu bari du jar ñukay gis du jar lenn xana dañ koy dégg rek ne mi ngi fi ci dëkk bi ndax bu nit ki bo bëggee melne mom do bëgg def lu yées lamuy def lolé rek ak nekkomon ci dëkk bi rek nekk gi rek am jàngale la woon nekkin bi rek ndax doo bëgg ñu ne ah yow kat ni nii nii yow kat nii ndax moom na meloon na ne dégg na Sëriñ Tuubaa bëgg ku ni mel noonu rek la meloon kon loolu luñ mat a war a mën a sante bu baax la ah lii ngeen def itam muy organisation ci àddina lu mën a doon xam-xam da caa war a jiitu suñ noppee ñu organiser ko mu ànd ak méthode organisation ak méthode lu am solo la ndax loo organiser rek mën naa baax ak organiser nañ koy organiser waaw ñaar yooyu ñooy ànd alhamdulilah jóge na ci Serigne Touba yar ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké Serigne Touba lam mu organiser boo ko seetee moo di bi mu joxee Cheikh Mouhamadou Fadel Cheikh Mamadou Moustapha sëñ ma loqee bu sa ak Serigne ma ak ñeneen ak ñeneen سيد محمد مصطفى مو وقت نكون جانج الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبا لهم وحسن مآب الحمد لله رب العالمين بابا توبا أي ربكي أي دد في نكون كان خلاتو ونه بابا خاتون واي أمنا جسكيس بس يلا أمنا جسكيس بوا خمنة ولن نكون تاي بدون تا نمكوا يفعل دي وخي تي موينج ولا تي période يين خمنة أي دومينشون لول dañ daan def ay tata muy rempart moom nag rempart yooyu da ko def sur le plan spirituel fexe na ne Touba jëmbat na fii diine yi Muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam mais da koy wutal nag ay poste avancé yu ne ci kanam yoo xam ne danañ fekk Touba yooye mu teg te yeneen yu ne ci seen kanam yoo xam ne seex sa ñoo ko yor ñu aar ko kenn ku ne waxuma sax ngay aar fi diina ji ne waaye ngay gën di yokk ci liggéey ak ci xalaat ci jaamu yàlla ak ci jàppalante nga xam ne dana sécuriser Touba ba kenn du ci mën dara te loolu la Gaynde na def ci xam-xam Cheikh Mahmoud Moustapha ba mu koy def gis nga ko de centralisation territoriale boobu sëriñ bi doon euh, juñ yi moom moo ko Euh, moo ko moo ko mettre en en application pratique moo ko pratiquer dem ci dëkk gor yóbbu fa boroomi xam-xam ñuy liggéey di jàng di jaamu yàlla demaat ci beneen dëkk demaan ci beneen dëkk loolu mooy avancé réew moo indi économie réew ba defe naa ne tubaab bi joxoon na ko sax médaille agricole kon alhamdulilahi rabil alamina euh, Serigne Cheikh euh, baax naa màggal lool ndax jàmbaar la woon te mos a def lenn loo xam ne ci euh, lu yomb la ci yomb lay doon lépp lépp lépp ci jom la ko def ak ci ngor ak ci teraanga jàpp ñëpp yërëm ñëpp ñi ngeen def tey dajaloo su fekkoonte ne reconnaissance amoon na ñi mu jàppale ci Sénégal waroon na tey ca Dakar am ñu ko jumale def ko foofa ci même temps bi Kaolack ñu def ko Ndar ñu def ko Sénégal gépp ñu def ko parce que fenn fu ne def na fa dara fenn fu ne ji na fa xam-xam fenn fu ne ji na leen ngor ji na leen teraanga defal na leen waaw ku leen doon woo duñu fi xaj waaye nag alhamdulilah li doy na bàyyi fi loo xam ne organiser nañu nekk benn kenn ku ne yaa ngi xalaat mbooloo mi mbooloo mépp ñi ngi xalaat kenn ku ne ñu ànd defu say di yëkkateendoo di tëralandoo ngir wéyal loolam loolee kon am ngeen un rôle à jouer ci développement Touba moo di Touba amul industrialisation bariwu fi waaw lépp Dakar la war dem te dañ ko war a parce que ville bi gën a màgg ci Sénégal mooy Touba de tous les côtés bay boo ngeen jël compas ngeen jël carte Sénégal ndakaar mënatul a màgg jëm ci géej ga mënta ne fii nag fu ne la mën a màggee loolu motax magalu touba li fi ñëw ay chiffre record ci doom adam munta nek fenen waaw boole ceeg teranga ji nak nga xam dañ lay teral ba du aje hôtel bu doon ku fi wara ñëw wara dug nek ci hôtel li fi wara meena ñëw du fi ñëw xewal gu ko yàlla ubil la moy de tous les côtés rek doom aadama bi na fe jóge te du am contrôle fu neex way ñëw te bu ñewé do xif do mar do def dara ta magal gi ci bopam dalay yor di nga fi nekk boo fi jógee mu yor la ba nawet jot bu nawetee mu fexeel la vivre de soudure ba mën a euh, liggéeyal réew mi kon alhamdulilah nañ ko roy bu baax a baax ci jikkoom yooyu jikko yu rafet la fi bàyyi euh, tukki gi ñuy def itam tukki euh, liggéey la ko daan def tukki liggéey ginnaawam la tukki bi xew waaye tukki liggéey lañ daan def donte baax na sax ndax njabootu sëñ Tuubaa fu ñu teew xéewal wadd fa tegu basi la fu mu daanu rek dana ruus waaye Serigne Cheikh dafa étudiant yi bu mu masaan taseel amul xajeek seen ñépp lay dimbali waaw comme ni ko sëñ Cheikh si Tidiane si Maktoum ma nekk naa France mu jàpp ñu ci wàll googu ñoom yàlla boole woon na leen xalaat boobu ci kuy jàng di dimbali kuy do kuy kuy jaamu yàlla dimbali doomu aadama am am yërmande ci ñoom ku yërëmoon ñëpp la ku yemale woon ñëpp la kon ku mel noonu de kenn ku ne bu ci royee añ sëñ Cheikh Gaynde Fatma bu ñu tasaaroo ci Sénégal mën na nañoo yor waxuma sax Touba waxuma Sénégal waaye mën nañoo yor àddina ci xel xalaat jëf te lépp yéene lal ko kon ah, xam naa lii dañ koy tuddee rek dox dajawaat waaye ñun ñemewuñ koo tëj ndax mbirum sëñ Cheikh du tëju mukk ci àddina day ubbi ko rek kon sëñ Moustapha ah buñ fi toogee di wax ba mën nañoo lenn rek laa ciy fàttali bi may dem Tunis la asima maag sëñ Maamoor dem sëtu sëñ Baara la dami sëñ ma dem ñu di ko tàggu départ bi une heure la woon bu avion bi toog ba midi et demi départ gu ñu da euh, kii Colobane mu toog a toog toog ba une heure nga xam ne ci la wal bi waloon départ mu yónni ma ne ma wol ma daam sàll nga xam ne damaa yàkkamte ba tànku neen laa def jël taxi bi daam sàll ñëwee mu déy ko mu demaatati maa ngi yàkkamti lool daam sàll ñëwee indil ko enveloppe jox ko ko mu daal di yeewi maamoor dem man mu bàyyiwaat ma fa ne ah man de wax dëgg yàlla lii moom xam xaw xam naa dana tedd tey ah ma toog toog xam naa ñeewante ji rek mu génnee xaalis bu bari jox ma te jamono jooja cinquante mille te jamono jooja ñu wàcc Euh, ma dem aéroport sëñ Xaadim moom sëñ Ibra ñu ko daan def sëñ Ibra Mboxos booba ma nga bureau de bourse ne ma yow yow de boobu avion bi paanul woon da nga doon tardé wallaay laa dem daan ne ma gaawal ñu embarqué la indi sa bagage seede yaa ngi fi ku jox Pape Yade Wade ñoo àndoon ku ñu wax Imam Lamine Sarr noo àndoon ñu ngi may dégg Nous fekkee nous ngi ah, embarqué deux heures laa fa laa fa egg nga départ Las Palmas ñu bañ en vol problème de pressurisation pressurisation waaw euh, dépressurisation bon ñu daal defar ko daal dem jaar jaar Maroc dem Tunis la bi ñu demee aéroport u Carthage ka fa gën a néewul gis naa fa ku wecc ko mille francs te change ba ci ci ci booy dugg foofu fa police des frontières ka fa ëpp lam wecc ko di dix mille francs man ma wecc ko lee mu nekk ay dinaar yu jeex ñu dem ma gis fa koo xam ne mu ngi Euh, courtage yi lay def mais xam naa ne à la la woon da koy doon def day nekk ci daal di mu ñu wut kër goo xam ne ku ñuy wax Bachir ci xayul xadara muy première villa bu xayul xadara mu luye ma ko lebal ñu ay mbàjj xaalis ba ca des dama woo ñaar ña ma bokkal kër ma seddale ko ak ñoom bañ ma laajee ñu ne waaye dangaa dof xanaa ndax euh, sunu si ñëwagul mooy leen ki ma defal lii laay àggalee yéenem waaw te ñooñu ngi may dégg itam kenn ci ñoom sax nee na ma dee ko faral di wax ndax yow yaa tax ñu xam sëñ Cheikh Gaynde Fatma muy Pabiat Bad waaw moom aviation la doon def sama xarit la moom it mi ngi may dégg kon dañoo am héritage boo xam ne ci sëñ Cheikh Gaynde Fatma lu mat a fonk la waaw loo xam ne lu ci doon loo ci jël rek. mën naa yor àddina mën naa defar doomu aadama moom defar doomu aadama la yëkkati woon Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam indi Serigne Touba loolu moom la nekkee woon ci àddina ci ngor ak ci jom ak ci teraanga di defar doomu aadama yi li ma ci mën a wax bari na bu ko toppee duñu fi jóg waaye rek yàlla na ko yàlla fay yokk leeram ca wetu maamam Cheikh Amadou Bamba ca wetu bàyyam bu tedd ba Cheikh Mamadou Moustapha kon noo ngi leen di sant bu baax di leen félicité di félicité bureau bi bureau bu bees bi ñu ci bari xam naa leen ñoo ngi ci am yaakaar yaakaaru na ndax la tàmbalee ci sëñ Touba jaar Cheikh Moussa jaar sëñ Cheikh jaar ci ni ma leen ko waxee sëñ Mbàkke Soxna Lo jaar ci Abdou Fatah ba ci sëñ Abdou euh, Rahman mii tey euh, jokkalante googee ak bureau yi fi jaar liggéeyu rafet yi ñu def buñ ca xoolee rek day mel ne jekk na ba pare kon lu yomb lay doon yàlla na ko yàlla yombal barkeelal ko yàlla yàggal na fi guddal suñuy fan ñun ñëpp ba yàlla dimbali ñu mu ànd ak wér ak kàttan ba nu gën a mën a jaamu yàlla bi jaahi seydul wujud ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu kilifa kër gi sëñ Ahmadou Maxtaar di ko ziar di ñaanalaat sëñ Muntaxa Mbakke ak kilifa yi diine yi ci senegal yëpp yàlla yàggal leen fi te jaay mu sax ci Sénégal bi jaahi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي أحمد على محمد عليه خير الصلوات